سال أعمالكم waa DGE na ngeen def e na ngeen def ak coono yi naka yitte yi naka njaboot bi baa kenn woppul rek ma yéen mbaa am ngeen une minute seen temps am ngeen voilà yaa si merci beaucoup oui ma s'il vous plaît yéen yëg ngeen li waa Sénat wax waa Sénat ngam dele gila wacc rek gona gi nama yow de wase na ne nañ basé ci oh. nañ jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage s'il vous plaît le kan ngeen ñu jox une fiche de parrainage le kan ah papa di ngeen ñu ko jox rek ñepp wax nañ ne nañ ngeen jox ñu suñu fiche jox leen ñu suñu fiche de parrainage yeen tamit nak s'il vous plaît ay age ci ngom la yeey ni sax ci ngom de la yeey wa sénat de na leen na ngeen yor seen ay ceinture ak seen ndomba teg ci côté bi comme ça bu waa DGE bañaatee ngeen làppali leen ba nooy ñépp gone day am kilifa waa Sénat walaay Achim ñoo xaram rek ñoom de wax naa leen merci beaucoup félicité naa leen de nee naa leen merci beaucoup jaaraama jokka njal happy birthday to you waaye Noël <laughs> ndax def nañ lañu war a def laay ma fàttali la ko ci ngoom laa yëy xaaral ma laal sama parfum au Sonko foofa toj <laughs> wallaay Achim waa DGE ñoo xoromu rekk yaay